wax ne manam gis nga Sonko mom waaw euh, man dama gis ne rek énergie bi parce que man musuma gis ñu jël ab ensemble jël député yi jël loi réew mi. Hmm. jël justice lepp sacrifier ko pour hmm. ben nit. pour xeex ben parti bo xam ñom yoru ñu dara. waaw gis na ko nan barki demb Jibril wal neena ben nit nek ci réew mi bëgg japp ñepp otage. <laughs> mané ko yow la ko doon waxal fogna mané la Jibril wal da waron wax ben nit nek ci réew mi ñu nit ñi otage. que ñoom ñoo ñu bëggoon a def otage benn nit ñëw yàq ko nit boobu nag maanaam moom moo waral xeex bii yëpp du ma ko ah. nëbb waaw waaw baye boo ñu mhm. ah? ñu ne loxo yi setut loxo yi setut ba mu yàgg ñu xam ne loxo yi set na léegi ñu tubéy jee setut parce que réew mi nag ñu ngi rëbb koo fi rëbb ci tubéy jàpp <laughs> ñu xool ba xam ne ñu xool ba xam ne tubéy ji sët tubéy ji moom xëy na foofu doxut léegi ci yéen a ji lañ nekk intention yi sëtut mooy intention terroriste la <laughs> léegi nag comme foofu lañ toll nag moom béy boo yow mën a noo muñal dañ doon seet